geero geer ñaa ngi nii daal muhammadu rasulullah abdallah baay mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be asalaamaaleykum mbokku internet bu jàmm ji info euh, point net yi mu mel rek ñu dellu si waat ak euh, ki nga xamante ni rek mooy euh, sëriñ Ahmadou Lahat xasida mbokk yi tabarkàlla Euh, tabarkal ñu ngi ko santaat bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne saa su ne itam buñ ko yittewoo rek mu daan ñu yombal li ni mel euh, tey nag ñu dugg rek waxtaan jox ko kàddu gi rek bu nuyoo incha allah bu dellu see rek ñu mën a daal di ànd ak moom sëñ Ahmadou Lakh Khassida asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah wajxal lisaani wa xal waxtaan xam naa ne tey ñu ko jëmale rek ci ki nga xam rek mooy euh, Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké yi mën ta fàtte mu mel ni itam euh, daanaka rek ñu ngi koy bëgg a fas yéene fàttali rek incha allah le 28 décembre. 2019 euh, mm-hmm. sëñ Ahmad Ndaat Xasida tey bu ma doon laaj tey kan mooy Serigne Saliou loolu ñuy tontu. ah léegi laaj nga loo jafe xam nga Serigne Saliou moom dañ ko xam ne xale buy doog a judd sax mën naa wax ci moom. ndax dañ ko xam ne yërmande suñu borom suñu borom wàcce la. damay jàpp ne daal maanaam yërmande ji ñuy ji ñuy tudd rahmaani rahim bi ñu tudd ci suñu borom daal maanaam mooy Serigne Saliou. ku képp ku jaxasoo nag moom rek loolu nga gis ci moom ndax day day koo xam ni daay jekkoon ci leneen lool te nekk loo xam ne yéem na ñëpp xam nga mos gis koo xam ne mos naa gis ko moom la sax milliardaire de millionnaire boo xam ne da koy gis saxal ci yàlla mos mosuma gis man moom nekk milliardaire boo xam ne heure boo ko gisee sa xel ci yàlla lay dem sa sa mosoo suñu saalu kenn ko gis ba mukk maan ba sa xel dem ci xaalis te koo xam ne milliardaire la ki mos a gis sëñ Saliou fekk ko mu toog rek sa xel dem ci xaalis loolu fi ne jàngat mu rëy rëy la moo xam ne ni ñoo na moom di ko soppi te dafa mën a soppi doomu aadama te dafa dafa doon koo xam ne mboolem ku mbokkal rek ku mbokkal sëñ Tuubaa ak mboolem te taalibe moom moom la woon nawle dafa jàpp ni ñëpp ko gën te te te nag maanaam moo gën ñëpp ndax koo xam ni moom xolam. lu toll ni toq pepp suuf sax ci eñaan nekku ci man ci Sëñ Saaliw laa ko gisee waxuma la sax maanaam nga nga door nit ci kanam wala nga def nit lu metti ci kanam waaye mos ñu gis benn bis ay xale di ko jub si rek maanaam am ku leen xajji rek xajji lañ xaj gi mu xajji xale yi dong mu ci jooy mos naa fekkee itam nag wuy am doom mu jooy ci mu jooy ci jooy yu metti yoo xam ne ci xel ko ñu bari ñu bari xam nañ ko waaw daana tëdd bu guddi itam mu jóg di xool xale yi ni tëddee baax na di defar am na benn xale boo xam ne mas naa ko fekk muy jooy ci gudd ko gudd la ko fekk muy jooy waaye jooy yi sëñ jooy xale bi doon jooy sëñ bi sëñ bi da cee daal di taqali ko sogom ba xamatul fu mu nekk ndax moom mu daal ni ah kon kon man man war a maa jógaat kon kon nekkati am naa dongo boo xam ne dina dem ba maanaam di toog fenn rek xelam di nekk ci la ci leneen loo xam ne nekkul nekkul neex ba muy ba muy jooy fekk na xale dafa am taab moom dafa jàppoon ne xale daa am lu ko naqari te dara nekkul ko woon waaw day koo xam ne dem munoo ko maanaam foo ko takk rek maanaam foo takk université incha allah wees na ba pare nag nekk nit ku jub koo xam ne képp mu nekkal force da jub ndax moom lépp loo xam ne da ko gën a bëgg da la koy bàyyee te itam loo jàpp ni maam dara la ci moom nekku ci moom dara lu lu suñ borom moom mi nga moom moom mi nga nekkal nga jàpp ni kii maanaam moom yàlla wala mooy nangam boo tegoo ci moom moo leen moom moom nekkul dara xam nga lay wax ñaanal ma yàlla. day delloo ci suñu borom direct moom du tax mbiram du taxawaan ñaata yoon nga dégg mu muy ñaan mu ni maay sàkku ci sama mbokk taalibe yi ne ma ñaanal yàlla xoolul suñ maanaam li muy li muy delluwaat nit ki ci yàlla moo waral la kon yow yow kon yow a jaamu yàlla que koo xam ni yow addunam yëpp ci yàlla la ko def ah moom sax mu ngi taxaw naan maay may leen ni ñaan yéen maanaam ngeen ñaan ma yàlla te pourtant loolu lépp maanaam ak jaajee doo nga la ko la koy defee suñu Saliou mooy koo xam ni mbiram maanaam mënu koo wax a wax a wax a wax maanaam maanaam ba mu jeex ku ma sa jax soo moom ku ne boo gisee da koy sopp soo ko xamee mootoo ko bàyyi waaw boo ko gisee da nga koy sopp te bis boo dugg dugg ci biram moo la gën a lépp dongob suñu saal lu nga gis bu dongob suñu saal yu bàyyam am kër gu rafet am lépp mu nekk xel kon di fa jànge bu ñëwee kër baay bu ñëwee kër baayam ñetti fan la fay def ñetti fan lay def ci daara ji delluwaat li def ci kër kër baayam delluwaat ci daara te kenn ko yóbbu nekk ci maanaam nekk ci biir daara ji moo gënal nekk ci kër baayam ndax maanaam lim leen ji am na xale yoo xam ne ba sëñ Salim na la yow ba léegi eh, kenn eh, kenn kiyatu leen dañoo dem seen yoon ki gisatu leen yow xoolal lu mu jafe nga yor ay ay taalibe ñu taalibe dem ba nga xam ne maam yàlla gën a seen ndey ak seen bàyyi maanaam sëñ Saliou moo yonent bi maanaam maanaam maanaam ku yonent bi la jëm yonent bi saxaaba yi dañoo di àggan ci moom foo xam ne mu leen gënal seen ndey gën gënal leen lépp sëñ Saliou noonu la fi moo tax moo tax ba seetloo taalibe sëñ Saliou mu dëggam kenn kur sëñ Saliou ndax maam ji maanaam ji maanaam yërmande ji sëñ Saliou am am ci ñoom sëñ Saliou bu ngeen bokkan dara day bëgg yow yow nga jaruñu man moomu loru koo xam ne lu maam lépp lu ngeen seen ci kanam maanaam ngir war caa jëm mu nekk mu nekk lu baax dala jiital ni ko baaxee ni mosuma koo gis sëñ nga sëñ Abdou Lahad radiyallahu anhu dafa mas a wax ni man de Saliou bi man jaaxal na ma ñu ne ko waaw loolu tax mu ne ah damaa xam ne man lépp lu ma xiyaas ba maanaam ba jàpp ni lii lu kawe la rek su ma demee su ma gisee su ma gisee sëñ Saliou gis ni maanaam romb na lool. ba ba pare moom jàpp ni defagul fenn moom daal loo ko jaaxal moom xam nga tey jii koo xam ni lu waay di wut mu ngi ci moom te ma ñëwee ci moom moom moom moom du ko dara. te gis nga Abdou Diouf da doon wax sëñ Abdou laat naan ko. yaa la téléphone nangam nangam bu ma ci taxawee nii nii waaye xam nga Casamance tax su la da ko reeree joo xam ne mosu ko ko ree mun ko mun sëñ bi li ma wax nii mun ma sëñ bi tey ma sa mbégte nga xam ne moo ma jaaxal ak ak yow la wax sax tax koo neex mun ko damaa xam ni man kay damaa sob rek waaye li may laaj nii sax man bokkul si bokkul ci sama liggéey sax bis bis bu borom jamono ñëwee dana ko lijjanti lijjanti bu gaaw waaye xoolal ba borom jamono ñëwee sëñ Saliou ñëwee boo ko waxee Ablaye Wade du def day yomb lool maanaam doomi Sëñ Tuubaa nag ñooñu ñoo xam ne moom kenn du ñoom Sëñ Sëñ Tuubaa wax na ko wax na ni sama doomi sama xasida yi sa sama doomi sama jumaa sama xasida yi daal ni sama doom yi def naa ci ñoom loo xam ne du ñu réer du ñu réeral kenn sama xasida yi mooy samay tànk te kuy topp ay tànk bi yàggee da nga gis jëm sama jumaa ji ku ci feeñ du too du too nobb doo doomi suñu tubaay ko jël tey wax wax maanaam maanaam ay jaloram da nga naan est-ce que kon maanaam kii rek moom doyul woon sakk si suñu bilaat rek dafa nekk koo xam ne rek marqué na di jamono koo xam ne foo ko fekk dëggam taxaw na mas nañu ko andil euh, benn waykat ñaga mbay yal na ko yàlla yërëm ñu ne ko kii de moo la way way sëñ Abdullah euh, way sëñ Abdou Aziz Dabakh ak euh, Abdou Aziz Abdou Khadir Jeylaani mu ni mu ni waaw léegi nag ñu ne ko waa dafay ñëwoon pour ñu xamal mu ne mu ne xaw ma moom Abdou Dawaay mii de moom toj nga ko mbërum làmb ñëw na ci moom di ko siyaare ñun ko kii murid la dañoo bëgg nangam nangam nangam mu leen dem leen ngeen dem ca ca armée ngeen si siyaare bu bu ngeen dëppee ngeen ñëwaat ba ñëwaatee mooy leen ki ngeen ni comme daan ñuy daan daan daan mooy leen moom nan la def maanaam maanaam ki daan ñooñu loolu fa fa mu demoon dégg fu ko fekk rek xam-xamewul ku am alal xamewul nanga ñu ko kebe bi ko laajee ne ko yan yan bis moo a neex ci bis yi nga dund ci sa àdduna dañuy dañuy ñaari ngan seen laa am ci ngan yoo xam ne si bu ko fàtte sama àdduna ba ka faatu nee na bi ma ko bi ma ko seetee ak bi ma seetsee ñu laaj ko muy benn bi mooy damaa tabax kër fii importé yi fi war nekk yëpp jël ko Europe fexe ba ma topp ko ko topp ko topp ba suñu laaj ni ma bis sàngam danaa la ñëwal. ba ma ganasee ñu xool mu dugg ci kër gi xool ba ngoon jot mu génn ci ci mbedd maa nag moom nee mu boot loxo yi dox ba ba sori kër gi taxaw jàkkaarloo ko gi ni ma ah, am nga kër de waaye leen képp ma jaaxal mën ko am ah, mën ko àdduna dunu kër ba àdduna dunu kër may la ah, am nga kër léegi ñu ko neen baat boobu noonu ci boppam nee na kër gu mu dugg rek li muy xalaat mooy ala kulli laa dana fi jóge léegi xoolal euh, xoolal ki kam ko waxoon ak ka ko waxoon ana ñu ah. beneen mooy da koo ñëw nga gane si suñu laat rayal ko ay xaar dafa ko lépp ñu toog ci saal bi ñu teg ndab yi ñëpp sukk sa waay toog rek mën ko looy xaar sukkal yaa ngi ñuy ay nit lañ comme yow di. nee na bis boobu noonu maanaam maanaam maanaam nee na moom bis boobu maanaam li mu yëg ci ci ci xolam nee na booba la yoo xam ne moom la kër moom nit kese la. ndax nee ndax nee na fu masa dem fu ne dañ koy ber fenn def ko fenn xam nga nit ñi nit ñi def rek mu alal wala borom nang borom daraja moom da ko da ko wàcc wàcc waaye mën ko ni ko nag loo mën a am jàppal ni yaa ñi yéen a yam waaw ay doomu aadama ngeen loolu nag dafay wane ni ñoom dañuy dañuy dañu fa nekkoon ñoo xam ne ñoom luñ fi kenn ku suñu borom mas na andi ay xaj euh, Touba mag ñi ñëw ni ko ah sëñ bi nit ñaa nit ñaa ngi coow rek naan xaji xaji mu ne xaji laa seen gis rek maanaam dootu leen fi gis loolu kilifa dafa war a taxaw place boo xam a ñëw ci yow buy def la ko ne dëpp wut lu dëpp wut ak bëgg xamal ko ni ko li nga def baaxul waaye jamono bi toll foo xam ne daanaka amal xaalis ak yow noo koy baax na foo dem daal sëñ bi moom dañ la recevoir ah noo bëgg la ñuy waxante yow loo neex rek ngay am waaw ah, loolu nag war nañ ko moytu waaye suñu saa yi daal ku baax ba bëggee dëgg-dëgg moom mooy borom jamono. macha allah wasalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. tubarkal eh, jërëjëf sëñ Ahmadou Lakhat Khassida yaakaar naa santaar nañ la beneen yoon eh, nday nday sant yi xam nañ lu bëree bëri li nga xamante ne rek eh, ci Serigne Saliou boo toog da nga koy waxtaane lu bëree bëri moo taxoon tey mënuñoo tëb te bés bi nga xam ñu ngi koy waajal le 28 macha allah di ko fàttaliku ci di ko ci ñaanal saa su ne waatam muy le 28